allahu akbar la ilaha illallah Allô Allô Oui. Waaw. Waaw. Waaw. Yow foo doon xëy daanu nga tudd bâtiment ba daanu nga am ay léegi. Ci ñuy liggéey. lépp daanu nga xam non waaye romb la rek xanaa duggoo ci site boo duggee nga xool ko lépp naaf saay laa la